billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala asraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaan wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu monsieur le gouverneur ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ko ci CRD bi li ci war lépp def nga ko tabaarakallaahu ñi nga xam ne ñooy chef de service si ñoom ñi ngi leen di sant di sant sécurité bi di sant ñëpp bàyyiwuñ kenn di leen xamal ne li ngeen wax dégg nañu ko dañuy buñ demee ba ca fan yey mujj nga xam ne fa la ñuy def évaluation danañ xool luñ ci def ak luñ ci defut wóor nañu ne nag pas-pas bi ngeen am ci def kooku moom xam nañ ko bu baax ndax kenn ku ci ne lii def nga ko guddul benn guddul ñaar di am ci pas-pas kon loolu ñu ngi leen ci gërëm bu baax damaa euh, ñuy xam luñ ci def ak luñ leen xamal ne itam bis bi ci bis yi mat a gën a jàpp la bokk amul benn bis boo xam ne bii ci yoon wi ëpp na ko ci solo ndax sëriñ Touba moo lu am solo ci Touba rek moo ko def lu am solo ci mouridisme moom la lu am solo ci lislaam lu ci bari moo ko def leneen li ci des ay bokkam ñu nekk ci waawoon ak a nekk jàpp jàpp ci lañ man doxin woowu mooy wi nga xam ne moom lañu xam ñu di ko doxe wax bu nekk dara du ca manqué kon bisam bés bu ñu war a boole ci programme yi la am na kuñ fi laaj léegi mu ne bokkul ci programme ci programme yëpp la war a bokk lu ñuy def ci màggal yi li ko def ci bés yi di ko def ci bésu Sëriñ Tuubaa yi bis bu ñu war defal Seex te ku ko def da nga def lu neex Cheikh Mass lu neex Serigne ndax moom xam na fu mu tegoon Cheikh Massamba li nga xam ne moom la waa baax noonu la demee léppam la mbokkam la ci wàllu ndey mbokk la ci wàllu kokki yi ci wàllu baay mbokk la ci wàllu kokki yi itam ku baax kokki ku nekk mbokk nga ci moom sëñ Mata Massamba Anta Ceebu moom mu ñu ko tuddee ku ñu ku ñu xam ci kokki la kon fa tabaarakallaahu moom mooy mooy mooy mooy léppam gannaaw bu loolu wéyee itam ñu seen xamal ne <clears throat> ni mu wax léegi ci wax ji euh, am na solo lool ndax euh, dafa dafa defoon ko fonk sëñ Touba bëggoon ko lool ba tax sëñ Modou Moussa bi mu nekkee mu jàppe ko ne sëñ Touba di ko jàppale ci lu baree baree bari di ko taxaw lu baree baree bari sëñ Modou Moussa moom it joxoon ko cër bi nga xam ne war na ko ko jox ba mu mat sëkk lépp nag loo xam ne ah, daanañ ko def sëñ Touba ñoom la koy boole moom sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou ñoo ëpp lu ñu leen di boole lu ñu leen di tudd ci ñu ànd ak sëñ ma Massamba waaye sëñ Touba leen leen wax ne Moustapha bu leen jàpp ne bu leen ko jàppee leen jàpp leen ko seen way jur seen way jur la de na leen ko ba tey kon doxin woowu mooy wi nga xam ne moom la sëriñ Touba doon doxee ak Cheikh Massamba waaye sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ noonu lañ doon doxee ak moom bëggoon ko lool bëgg fonk ko lool man koo teral lool tubaarkàlla moomit nag moom dafa jëndewul dara lu ak taal bi rek la soxla ak ngërëmul sëriñ tubaar rek moom la soxla soxlawul leneen loolu ci la ci la jeexal dundam képp ba mu jeex tàkk njabootam mu sóob leen ci loolu te dara soppiwuñ ko ca ba léegi ca ka ci ka ci mag ba ci ki gën a doon ndaw taxawaay yooyu lañu am loolu mooy doxinu Seex Masamba kon bisam ku ci jàpp ba mu mel nam wóor na def nga lu neex Sëriñ Tuuba def nga loo xam ne gërëm na ko da nga ci am payu yàlla ak payu yonent bi ak Sëriñ Tuuba ci boppam loolu kon li ngeen digee lépp ngeen fexe ba mën koo matale la ci ëpp lépp ngeen def ko xëy na def lépp ba mu mat jafe na waaye nag la ngeen mën ngeen def ko loolu ñu ngi leen ci gërëm bu baax gouverneur dirisé nga ko dirisé bu baax kenn ku ne wax nga ko laaj nga ko ak préfet taxaw taxawaay yu rafet ba lépp mën a jàll jàllin wu leer woo xam ne kenn ku ne xam na ne lii benn CRD mënu ko gën a tege ci yoon kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax di leen ñaanal yàlla bu baax ñu fekk ko ay déwén yi déwén te bii ñëw itam mel na ay moroom mel ba mu gën leen a yéwén loolu ñu ko ñaan bu baax di leen gërëm bu baax di sant itam délégation bii nga xam ne moom laa àndal te ñu am pas-pas ci taxawaay bi kenn ku ne bu sañoon la ñuy wax moo koy waxal boppam sax ndax yéene juñ ci am ak bëgg-bëgg bu ñu am ci Seex sàmba ak taxawaay bu rafet bu ñu am ci sëriñ Maamoor mi nga xam ne mooy xalifa Seex sàmba te euh, mate ko sëkk am taxawaay bu rafet ci ñëpp bëgg njaboot gi lool fonk leen lool man leen a teral lool doxinam yëpp ci loolu la ko jeexal tàkk kon ñu ngi koy gërëm bu baax moom Seex sëñ sëñ Maamoor di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ba li mu yéenee seex Cheikh Massamba mu liggéey ko ba mu mat ànd ko ak ñun ñëpp yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñu ngi leen di gërëm bu baax itam nag ci taxawaay te sant itam nag euh, état bi ak yëpp yi taxawaaye ndax lépp la yëfu état la a def kon ñu sant état bu baax a baax ñu gën a góorgóorlu gën ñu jàppale gën a jàppale euh, taalibe yi gën a jàppale événement yi am ci wàllu diine ndax loolu lu am solo la fa tabarakallahu kon yàlla na yàlla fay leen yàlla defal leen tawfiq ak taysir defal leen xéewal ak mucc loolu yomb na yàlla lool yàlla na ko yàlla def ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu sant sëñ bu baax sant euh, aussi ñu mu àndal daaw fii lañ toogoon aussi di ko def te yaakaar naa buñ màggal gi passé it xëy na rëq-rëq mënta am ndax doomu aadama mënatul def cent pour cent mais dañ jéem suñu kat suñu kéem lay tas kattan ba luñ fi wax yëpp ñu jëm ko jëm ko matale kon nag dañuy ñaax daal service yi fi toog yëpp ne buñ commencé ci SONAGED moo ñu yore affaire u mbalit mi euh, kii bi cet gi que lu ñu waxoon daaw lu ñu defoon daaw ñu gën ko yokk te aussi ñu jéem a lëkkaloo ak comité bi comme jàpp ne ñoom le 10 lañuy def seen seen set setal ba jotee incha lépp lu xam ne laaj na ko ci jumtukaay ñu yóbbu ko ànd ak mairie bi aussi ànd ak ak taalibe yi pour mën a sa sosal mën a sa sosal dëkk bi pour hydraulique aussi moom it dañ koy ñaan comme moom euh, ñaari citerne la ñoo xam ne daaw te ñu ne ñaari citerne yi doyut préfet sax su préfet mu ne ñaari citerne yi doyut dañ ko gën a yokk loolu nag xam naa il faut ñu bind lettre ministre de l'eau et de l'assainissement war ko na ko nag magal gi le 20 mars la te luñ ci soxla daal moom ëpp na ñaari citerne ñu jéem ko yokk mais lu ci garam solo aussi mooy forage bi comme forage bi amagul sotti d'eau te nga ne dañ ko programme 2023 loolu nag damay ñaan Senelec ñu ut benn groupe teg fa ndax courant bi coupé mënoo xam kan la nan ko teg benn groupe 72 heures avant comme sa léegi courant yi mën kii mën a continuer de fonctionner alhamdulilah comme ça comme ñoom jël neen en charge mais kuy yore ku yore forage bi bu koy doxal moom yaakaar naa il foog nga wax ko ne ko nag euh, bu mag rek def si une semaine na fa commencé di fa fanaan ndax moo gën muy tëj guddi di dem bu ko kii bi kii dafay fanaan daal foofu mu sësëg sësëg machine bi ñu continuer di ko taal guddeeg bëccëg boo xam ne daal ndox du ndox du man ndax ndox mooy lépp léegi nag Senelec moom jël na engagement ne moom lépp lu ci xam ne moom ci moom ci côté la dina ko def mooy dana fa indi ñaari descente dana ko def hors délestage dana fi indi groupe électrogène dana fi indi 200 dana fi indi ñaar téeméeri ampoule yooyu vraiment kooku moom it dañ koy sant ji des nag mairie moom moo ko moom ndax comme mairie bi aussi kii mi ngi ñëw di la jàppale li ci des lamp yaakaar naa yooyu nag euh, mën nga xool nag li ci des bu kii indee deux cent mille la ca des it nga jëm koo nga jëm ko nga jëm koo nga jëm ko doxal loolu moo moom li ngay doxalee aussi ak ndox ndox mi ci ci ci affaire u lamp yi nga doxal ko aussi ci affaire u service d'hygiène def ko ak élevage ndax euh, ndax lépp mën a mat ndax élevage nee na fii ak bu ngeen bëgg a xaj yi xaw ko kii foog ngeen ngeen xaw ko gaawal yaakaar naa bu ngeen fa jógee rek bu ngeen gisee le maire de Touba euh, Abdoul Ahad Ka na ko kat ñun lii leen bëgg a def avant le 10 lii ak lii la laaj lépp yaakaar naa dana dina dina mën a antu kon nag damay invité aussi service d'hygiène ak Maam Jaara li ngeen soxla aussi ngeen bind ko jox leen ko ñoom ñax mi man ko teel a xam yooyu yaakaar naa yaak bu ko defeen kii boo jëmee ci affaire vidange aussi damay ñaan aussi waa ONAS lu mu gën a rek nga teel koo kii comme ça aussi ñaari camion yi nga wax pour ñeenti fan ñu mën a teel a mën a sotti bu sottiwul aussi ñu mën ko teel a xam ndax aussi comme ñii ñi nga waajal réunion d'évaluation bu réunion d'évaluation bi jotee ñoom dem dañ leen boo demee nga wax ak ñoom boo waxee comité bi dana dégg li wax bu fereen léegi ñu mën a xool nag yan mesure la mën a jël fekkee en tout yan mesure la mën a jël ci diggante bi pour indi ko pour indi ko saafara mooy même chose aussi pour effort pour baas Sonatel bu ñu fi jógee dañ jéem a xool ak euh, monsieur le sous-préfet dana xoolak ak Sonatel Touba pour xool naka la mën a defalee ba réseau bi euh, bu nekk daaro Karim réseau bi euh, réseau bi jot loolu yaakaar naa li ci des nag mooy police gendarmerie sapeur pompier ñooñu sañu liggéey ñoom yaakaar naa xam nañ ko miñ nañ màggal yi li ci des daal mooy ñoom ñi noonu comité bi ñu ngi noonu dajee leen ngeen waxtaan bu ngeen dajee waxtaan rek yaakaar naa ngeen wax li ngeen bëgg ñoom la ñu wax lu mën a lu mën a demee loolu yaakaar naa bu ngeen ko defee de du kii dowaar nag dañ ko wax aussi mu jéem a euh, yombalal ñi ñëw wante yombalal ñi ñëw nag taxul nag ñu bàyyi lépp mu jàll yombalal taxul taxul nga bàyyi contrôle waaw moom loolu dañ ko yombalal mais nag du taxaw aussi ñu bàyyi contrôle ndax euh, bu xew-xew yu mel nii amee ñuy gàmmoog ñoo tax jëm ñooy ànd yow yaakaar naa loolu aussi ñu région médicale dañ ko wax pour poste avancé yokk garab yi dañ ko ko wax service d'hygiène aussi moom wax nañ ko léegi élevage wax nañ ko léegi commerce aussi moom dañ koy ñaan nekkoon nag mu gën a yokk euh, contrôle ndax aussi jamono ji bu toll nii amaana prix yi mënuñ ko yokk wante nag amoon na fi benn màggal bu fi amoon mu ñu koy fàttaliku daaw bu am xawoon na ñaaw trop loolu yaakaar naa aussi ñu jëm ci taxaw ba su kenn du téye lu xam ne produit yoo xam ne moom la nit ñi gën a soxla ñu téye ko ba mën a prix bi gën a ba ba prix bi gën a mën a yokk yaakaar loolu commerce dañ ci liggéey ak lu xam ne nag lii baaxut produit yoo xam ne dafa mi ñu gën ci taxaw ci contrôle bi ndax wax waxtu wi leen nit ñi mën a am temps pour mën ko pour mën ko jaay DMTA nag dañ saisir ministre de dañ ko bindal laata ministre de l'intérieur wax ko na ko daaw léeg léeg lii nga indoon ci màggu daaru karam bi ñoom i ren it léeg lii leen soxlaat rek bu ñu joxee léegi-léegi yaakaar ne fii ngoon gën ko mën a bind CSA aussi moom it dana saisir ministre développement communautaire moom ma yor affaire dund bi crois que loo daalan amoon di sant ah ooye forêt moom it aussi dan yéenay bind laata joxoo pour wan ko na ko li lii ngeen soxla ci matt ou bien lii ngeen soxla ci kër yi wax na sa ngeen jox ko chef de secteur bi ne naa yokk leen jox ko préfet pour mën a yëg ne lettre bi départ na parce que lettre day départ Mbàkke ñëw fii fii lay déparé di doog ko yónnee doog ko yónnee Dakar ñun nag bu ñëwee ba fii ñun kii bu koy yónnee moom dana jox benn copie ñu xam ne kat leer si yegsi na fii mais nag pour mu xam ne préfet xam ne ma nga bàkke moom moom ngeen koy jox waaw ba yaakaar naa daal loolu maa moom sëñ bi di leen gërëm di ñaanal vraiment xale bi mu gën fa yàgg lool di ñaanal xalif général day murit aussi xalif général Baye Fall di ñaanal xalif général yi ci Sénégal yëpp yàlla defal ñu jàmm yaakaar naa daal lu ma ci am solo waaw ñaanal suñu région bi waaw ñaanal vraiment dañuy sàkk ñaanal ngeen ñaanal suñu région bi